gars yi ba léegi du ma doyal ci yéen du ma tàyyi ci di leen won nos espoirs yi nga xamante ne ñooy nekk suñuy champion de demain Boy Dione écurie Fass seen wati càmmuñ jiital tànku ndajooram comme Tafa Gueye xale yi Fass yi nag ku ci nekk tànku càmmuñ sax naturellement boo ñëwee faas foog nga changé jéem a jiital pour mel ni Tafa Gueye kon boog yàlla na ngeen doon ni Tafa Gueye seen wàllu ndajoor ngeen am ci Ousmane Diop numéro 2. mu ngem boo ngem bul weex li moom tamit jiital pied droit donc ñaari pied droit ñooy bëre ñaari pied droit bu ñu dee bëree nag day nekk très souvent ay combat yu gaaw ndax bii dina gaaw wala déet xaw ma yéen war a xam ñu dem Ousmane Diop di teg pression ki nga xamante ne moom mooy booy Diorno sànni det ci droit c'est bon moom c'est très bien Boy Diorno tontu ko xeex bi day neex Boy Diorno sànni foofu li nga xamante ne mooy det ci droit wàññeekuwaat ñu demaat ba tey rek ñaari pieds droits day day neex ah oh là là lii dañ ko taamu trop ci làmb appel bagarre appel bagarre ñaari tànk ndajoor ñaari tànk ndajoor ku nekk sa loxo bi ci kanam ngay jublu ki mu gën a yeewu nag wàcc na silip jàpp tànk jàpp mu ko jàpp nag vraiment ci mën a bariwul ah c'est énorme àgg na ci song bu lii moo tax ñuy wax lii la wax song bu mat du ñàkk tuuti réglage parce que xale yi tamit dañu toll ci ay jàngum bëre na tànk ba carrément moom ki nga xamante ne mooy Ousmane Diop ak ñaari loxoom booy jon loxo ba loxo bi mu waroon a utiliser nga xam ne adversaire bi du ko mën a àgg fu sori échappé na échappé na ko ba ba nekk ci ndig ginnaaw li ah, moom loxo bi donc loxo bu amul njariñ la pratiquement loxo booy jon bi amul njariñ benn benn yoon parce que li ñu ko doon doyee mooy loxo kat da lay mën a aar ci li ngay def jàpp na tànk bi moom Ousmane Diop jàpp bu baax ah, quand même ah li mu jàpp fii baax na ça c'est vraiment clair jàpp tànk ak ñaari loxo loo raar na ci làmb jàpp tànk ñaari loxo dafa raar dem nañu ñu wëndeelu mais c'est pas possible ah là là ah là non non gars yi fii nag moom dañ fi décortiquer làmb nag pourquoi ñu fi décortiquer làmb mooy action daf ñu dab boo xamante ne raar naa koy gis ci làmb ki très rarement at mu nekk peut-être at bi li bari bari yëpp da nga ko ci gis ñaar ñetti yoon cong mu jekke nii dañ ciy wax waxaat ci li naan prise une prise parfaite moom mooy loxo ndeyjooru ki nga xamante ne mooy Ousmane Diop ma ma ngi séntu côté bu baax loxo càmmuñam ba nga ca pooj ba bopp ba ma nga ca pokataan ba donc fii ko da ngay gis ne kon Ousmane Diop am na ñetti ndox ci ñetti ndox yi tax mu war a daan benn loxo bi ma ca gannaaw ñaar bopp bi dugg na ci pokataan yi ñu ne ko répété peste sur les aisselles. fii yoon bi la ñett loxo càmmuñ bi tamit am na fu mu jàpp ñett yi nag koo def mbër danga ko war a daan normalement fii ki nga xamante ne moom Ousmane Diop dafa waroon a buddi booy jonn ba taxaw dóor ci suuf ndax yëpp mat na tànk yi baax fi mu taxawee booy jonn sax pratiquement booy xool xool tànk càmmuñ booy booy jonn bi mu ngi ci kaw coos na benn tànk la des ci suuf nii. te yëkkati rek mu jóg amul amatul leneen il faut serrer foor ni nga ko téye noonu da ngay serré fort da koy taf sa yaram bu baax a baax wàcc say tànk ti tànk yi la nga nga doon suuf mais xool bi bi bi prise ni mu ni mu jekk mu Ousmane Diop Ousmane Diop ko 2 bi tànk bi ci biir benn loxo bi ci biir ñaar fu baax la loxo bi nekk ah ñaar ñaar loxo yëpp fu baax lañ nekk bopp bi ba pare bopp bi ñëw nekk fu gën a baaxati bët na pokotaan bi lan moo des Ousmane Diop wàcc say tànk seere waaj bu baax sa kaw yëkkati ko buddi ba taxaw dul suuf moo desoon fii ñu dem ba tey fu ñu mujjee aha voilà ah comme que nag ki nga xamante ne mooy booy jonn dafa nekk la bonne école mu écurie Fass da gis ne nag kon moom booy jon dafa déj bu mu xasee ba cëppeelu wàcc dafa def loo xamante ne certainement dañ koy jàng ku ko jàngul doo ko mun def moom mooy lan moom mooy loxo ba bopp ba waaj a bëtoon mi ngi nii génne na ko léegi nag Ousmane Diop fi ni nii prise am yàqu na jeex na tàkk mootu ci am dara booy joon racce na ñaari tànkam ñaari tànk yi booy joon racce na ko ba pare <laughs> bo empêché na ko moom ki nga xamante ne mooy Ousmane Diop mu liggéey parce que fii fu mu war a liggéey mooy fii bopp bopp bi dugatul ci loxo bi perception de la giselle boobu ñuy wax foog mu def nekk ci biir pour nga mun liggéey bu xasee deux jours rek mooy jeex na gisal fii bopp rëcc na booy jonn rëcc na booy jonn ràcc na fii ñaari tànkam carrément benn baa ngi nii moom la waa ji woon ñaareel baa ngi nii donc fu mu nii booy jonn mi ngi nekk situation wu rëcc action bi nga xamante ne moom la ko kii di Ousmane Diop téye woon ñu dem ba tey xale yi dañuy bëre ah dañuy bëre voilà rëcc na bopp ba bopp ba rëcc na c'est c'est mort aha ñu jàppante nag Ousmane Diop tam bëri mbërëntaan de ca sëkk gaño ga lu muy defaat encore mu Ousmane Diop ah là là Ousmane Diop mu ngi koy xar ngéppen ah là là là là là <laughs> ah là là ange gars yi lii mooy jëlu ange wax ko waxati ko ange fii bu laalee suuf rek jeex na booy xool jël bu bu soof la mais bu laalee suuf rek mooy jeex na Ange moom bu leen ko fàtte moom la le roi des arènes perte titre am muy bëreeg Bombardier fii la teg wet gi nag jël bu ñàkk fayda la waaye dafa bokk li ñu naan parmi les jël donc noonu la gisee kon abu euh, ki nga xamante ne mooy Boy John nekk écurie Fass daane Ousmane Diop ñu bëri combat bu neex combat bu tar boo xamante ne ñoom ñaar yëpp dañ tenté action ba ki nga xamante ne moo war a daan daan noonu la kon bokk Boy John daane ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Diop jël bu set wecc amul nag benn benn benn yorante